Charles Charles bu euh, yembee ah, kilifa gi yor wàllu napp gi parce que dañu fi tudd lu bëri napp ca Ndar bu ah. yembee nga nga nga jox ma ko ah. Pierre Da Silva euh, mi ngi mi ngi mi ci ligne bi xoolal buuba li mu doon wax nee na nguur gi jóg ndaxte euh, ay privé yoo xam ni vraiment sont pas obligés kii it kilifa gu nekk la ci maakaanam mi ngi ci wetu Olympique Club ci corniche bi Saliou mardi midi incha allah nee na boo fa ñëwee dinañ la tegal projet boo xam ni di nga ci mën a jàpp ba xëy na tamit euh, am sa moroom yoo xam ni dinañ ci mën dimbaliku alors ñu dem ba Ndar bëggul ñu wax turam donc je je garde l'anonymat pour moom Ousmane Sène lay wuyoo mi ngi ba Ndar moom moo yor euh, foofu kuréel gu jiite ay nappkan Ousmane ñi ngi lay nuyu salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam rahmatulah euh, sa participation rek ci tënk ci débat bi ndax wax nañ fi napp jafe-jafe yi nga xam ni xëy na moo tax xale yi di dem donte kenn du ko cautionné euh, lan moo ci sa gis-gis. waaw maa ngi leen di nuyu. Mhm. ñu ngi lay fay. di nuyu waa plateau bi yëpp. Mhm. jàkkaarloo. Mhm. di nuyu waa Sénégal yëpp nag. di am lu may wax rek ci wàllu euh, phénomène bi am nii. mu di wàllu immigration clandestin hmm. li xaw nii képp ko sénégalais wala ku dul sénégalais ku ne war nga ko mettitlu mu di partout dans le monde kenn ku ne war nga jël sa matuwaay ndax benn bakkan sax bu dee rawatina cent personnes yu dee wala cent cinquante personnes yu dee aywa loolu kan mooy responsabilité bi benn bakkan bu dee sax musiba la rawatina cent personnes yu dee loolu ñenn ñoo ko waral immigration clandestine bu ne wax ni pêcheurs gendar ya wala pêcheurs yi ñooy dem teroog boo jël tey 3 pour cent yi ñooy ñooy pêcheurs yi si def ñoom ay commerçant lañu ñi si def ñoom ay jaaykatu këriñ lañu yi si def ñoom ay footballeur lañu ñi si def ñoom ay ambulant lañu ñeneen ñi leneen lañu boo dee xool ñu naan pêcheurs yi ñooy dem pêcheurs yi ñooy dem pêcheurs yi ñoo ngi dem mais dem bi na tegu si yoon na fekk mu nekk loo xam ne lu jaar yoon la parce que ni sa toowaayee si tëdd kër enquête ay nit yu nekk sa joor ga ñoo xam ne duñu ay mool nga bëgg leen jaarale ci ndox ku yéeg ci gaal gi sax doo xam ne nga yéegi ci gaal gi waaw xoola problème bi am gaal gi tàkk tey gaal gi bu amoon ay gilets de sauvetage wala bu amoon ay ceinture tey ndax dee googu dana am bu dee am tuuti lay doon ndax gilet de sauvetage ku ko sol da ngay tëmb bu la boo deewee sax daan la fot li si am noonu kenn ku ne yéen a ngi nu ngi jënoog rek yooyu responsabilité bi te benn nit moo kaa def wala ñaari nit encaisse ay alalu jàmbur mhm. teew ñoom bu dee cent personnes tey tey cinquante personnes yi buñ leen daxee cinquante personnes mën na fi des ñoo ñëpp danañ mujj ñàkk seen xaalis mhm. ñuy def ñoolu ñan la géej géej nag day am jën yàlla nit ñi lu mu gëm dogal gëm lu yàlla dogal ak lu yàlla andi jamono day neex jamono day naqadi gis nga ñun dar Saint-Louis fii géej gi amul jën fii ba Nouakchott géej gi amul jën lan moo ko waral ñun doon nañ jàpp jën taayale yaaboy ak jëy ak la ña la ña nawet bi lan doon laaw géej mhm. am na boo xam fa tolloo day raxas mhm. jënu loolu du war indi jëre pour ñëwaat tet ak seegul jënoo ma nga sa nuwaa dibu di ñëw mu di mhm. woo yëg bi ak jëy bu ñuul bi dëgg la Ousmane te mois wala pendant 15 jours gaal jàpp bu soobee jërëjëf Ousmane dégg nañ li nga ci jot a wax euh, defe naa loolu it euh, am na lu mu.